jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajafal di leen jox seen wàccuwaay bu baax baax di leen wax xam naa ne namoon ngeen ñu waaye ñun tamit aussi namoon nañu leen tey mbokk yi maa ngi fii biir géejuwaay seet si ki nga xamante ni nii defe naa ne buñ ko gisee kenn dootu ko laajte ci làmb ndax su ma nee pe Adama Ngom rek euh, seen xel war na dem ci ki nga xamante ni mooy rëkkal junjung yi ki nga xamante nii mooy Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 saa buñ nee saa bu bàkkoo mu neex saa bu mu neex te saa bu ñuy def ambiance saa bu ñu ko waxee ci Balla Gaye rek kii yee ko waral ndax saa bu Balla dugg see euh, moo koy rëccal juñ yi ah foral ko yi ba mu kii jël peeg yi dugal ko wala mu rocc ko mu yëmbax mu tëggal ko lu neex tey nag moom lañ seet si bëgg waxtaan ak moom ci làmb ndax mbokk yi euh, ñu ci bay xàmmee nañ ko ci làmb ñu ci bay xàmmee nañ ko ak Balla Gaye 2 euh, tout récemment rek gëjoon nañoo gis Balla Gaye mais ko ñu ko gisee estade bi mu tuusee ñëpp seen xel dafa dal te defe naa ne buñ ñëwee tuus dañuy wax tëggkat bi ndax moom mii Euh, def na lu bëri ci Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 saa bu bàkkoo ñu ne Père Adama Ngom foo waxee Adama Ngom ne Balla Gaye 2 foo nee Balla Gaye 2 ne Père Adama Ngom ma bàyyi ko mu nuyoo ñu doog a waxtaan bi ndax nag faaw ñu waxtaan ci loolu waxtaan ci Boy Niang Balla Gaye waxtaan ci tëgg mi parce que tëgg mi fan yi booy lu leen koy tëggee bu loolu tamit bëgg ñu leeral ko tuuti ma mu nuyoo ñu doog a wéyee waxtaan bi Père nuyu naa la. Euh, maa ngi lay fay bu baax. Mm-hmm. ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci lint bi. Mm-hmm. Euh, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi amiin yal na fi jàmm sax. Mhm. Eh, di la ñaanal jàmm. amiin amiin ñu bokk ñëpp surtout nag seen site bi wasaare. Mhm. ndax wasaare fi mu toll nii. Mhm. wax dëgg yàlla moom la réew mi di déglu. dëgg la kon maa ngi ñaan daal yal na fi jàmm yàgg. amiin ci kàttanu yàlla. mais père euh, damay ñëw sax duma duma nekk sax ko kii damay ñëw ci biir laaw bi parce que euh, dama dama dama gis euh, kii di combat Gris ak ak Balla Gaye taxaw. kon kenn ku ne xam na ni euh, Gris waa 5-5 ñoo koy tëggal yow yaay tëggal Balla gay 2 defe naa ne foofu rek faw ku ku ñëw ci stade bi di nga xam ne di nga gis bàkk bu neex di nga gis ambiance parce que bu bu waa 5-5 tëggee euh, waa yaakaar naa waa Fass Gris Bordeaux tàllal Senghor ñëpp a jóg. Mm-hmm. nga war a waaj a ne combat Balla gay 2 ak Gris Bordeaux jege si na naka nga ko waajalee ndax defe naa ne nu mbay di waajee komba yéen tëggkat yi noonu ngeen di waajee foo sabar yi ah wut dafa galañ yi waajaat sañ-say naka nga ko bi avant combat bi Djibbs. Euh, bala maa wax foofu damay nuyu waa Seng Seng. Mhm. sama nawla yooyu sama xarit yooyu. Mhm. di ko teg ci loxo Baye Demba. Mhm. ndax Baye Demba sama rakk la. Euh, di leen féliciter duma leen encourager. dama leen di féliciter ndax Korok. wax dëgg yàlla lu neex leen tëgg. kon maa ngi leen di féliciter. di leen wax ne ñu gën a jàpp rek. Euh, yàlla baax na sport moo mel noonu. Mm-hmm. Euh, combat bi nag comme d'habitude. Mm-hmm. xam nga nag ñun. combat léegi balaa ngaa ñëw ci combat bi dama bëggoon xam naka ngeen di waajee bu ngeen waajee tëggal mbër comme ku mel ni Balla Gaye ndax defe naa ne ni mbër mi di waajee yéen noonu ngeen di waajee foo seen sabar du ngeen bëgg benn sabar mbaq du ngeen bëgg mu bañ a foor naka ngeen di waajee bu ngeen di waaj dem tëgg parce que nag xam nga ci làmb la ñuy wax mais gannaaw bu ñuy tëgg kat faw ñu leeral yenn yi nga xamante ni ñenn ñi xamuñ ko ci biir tëgg. Mm-hmm. man nag man Adama Ngom. bu desee weer. un lay teel a foor samay sabar. Mhm. denc leen. Mhm. teel a jënd samay galañ. Mhm. galañ da ngeen koy jënd. bu baax denc. teel a woo sama équipe bi may àndal. presque dinaa waxtaan ak ñoom trois fois avant combat bi. maanaam réunion. réunion yow yaay mbalax. yow yaay tunguni Mm-hmm. yow yaay bës mm-hmm. yow yaay ndeer mm-hmm. lii laay tëgg ñu respecté ko amul xuloo amul werante suñ duggee ci làmb ji amul càmbal càmbal e, yàlla nag suturaal na ma ñii ñoom ñëpp samay doom lañu te lu ma leen wax ci làmb dañ koy respecté man damay ñëw rek appliqué maanaam daal man noonu lay préparé. damay teel a fort teel a dagg samay galañ denc di waxtaan ak sama équipe waaw. Euh, léegi bu ngeen ni bu yàgg Balla Gaye 2 ñaata yoon ngeen répété avant combat bi répété ngeen. bon def nañ benn open de presse stade Amadou Barry. mais boobu dama ñëw rek tëgg mu fecc ndax moom dafa neex a tëggal. Mhm. biñ ne combat bi des na deux jours. dem nañ ca école ba répété tëgg bu bees bi. benn fan benn fan. daal di koy appliqué ndax moom yàlla moo def ni mu amee dégg ci bëre. noonu la amee dégg ci fecc. mais benn fan gàttul parce que ku mel ni yow ngay tëggal Balla Gaye 2 doo bëgg euh, dem ba stade nga tëgg jaar nii mu fecc jaar nii. xalaatoo woon noonu boo répété benn fan yow ak moom est-ce que dina dina dina dina li nga li nga li nga bëgg mu feccal la ko. non loolu ça dépend ci ki nga ko sëkkal. Mhm. su fekkee ne amul dégg-dégg. Mhm. mën ngeen répété sax une semaine. Mhm. mais bu fekkee ni ki dafa am dégg ku mel ni Balla Gaye ah, benn fan rek parce que man bi bi ñu xamante ba léegi. benn fan la ñuy répété mu jàpp ko. su ñëwee bu ñëwee ci stade bi toj ko. ak li ngeen li ngeen li ngeen ànd benn chaque jour benn fan nga répété benn fan laay répété moom mu toj foofu. waaw loolu yàlla moo ko defal. bi ngeen ñëwee ci làmb ji ngeen ñëw ci làmb ji dugg ci làmb ji gis stade bi fees lan nga yëg ne tey moom laa war a bàkkal sama mbër ak bi mu taxawee ñëw war a tuus parce que dama gis des fois bu ngeen taxawee mbër mu war a tuus da ngeen di tourner di wax ak booy du ngeen bëgg kenn génn contre temps wala kenn xaw a dérailler ci tëgg mi. non c'est man su ma ñëwee gis stade bi fees du ma bett. Mhm. ndax Balla moom chaque combat day fees. Mhm. Euh, bu ñu ñëwee ci tuus bi mhm. lenn rek mooy nekk sama problème mhm. nekkul man ak samay tëggkat mhm. mooy journaliste yi xam nga parce que dañuy bëgg taxaw ci diggante xam nga fi sabari ne waaw ba des fois doo mën a gis sax ah, ah, ñi ñi ngay tëggal ñi ngay ñi ñi nga nekkal loolu rek mooy nekk sama problème mais à part loolu man ama problème waaw vraiment te ñooñ tamit comprendre naa leen parce que ñoom dañuy bëgg a jël xam a ah, lu rafet daal dëgg la ak xër ci seen liggéey daal. loolu mhm. rek moo nekk sama problème mais à part loolu awma ci problème. bi nga bi nga bi nga bi nga bi nga bi nga bi nga bi nga tëggee commencé naka ngeen koy waxee sax bi ngay nooy tijji. Euh, mbaara bukki. mbaara bukki boo tëggee mbaara bukki bi. ba Balla Gaye taxaw jàkkaarloo ak yow. diggante boobu noonu muy muy waaj a tuusee wala laataa muy commencé diñ ci gis mbër mi tey pare na wala parewul non Balla buñ jàkkaarloo nii. Mhm. non damay xam ne kii pare na. xam nga nag pare ak lii xew bokkul. waaw parce que nit ñu su bëri dañ ne mbër bu taxawee ba tuus. di nga xam ne kii tey ñëw na à cent pour cent wala des na. non tuus tuus mooy ouverture mbër. Mhm. su jaaree yoon. Mhm. am na ci mille chance pour gagner combat bi. dëgg la ndax tuus bi bu jaaree yoon. Mhm. mbër mi day nekk en activité. mais bu jaaru yoon ah day xaw a découragé. Mm-hmm. kon tous dafa am solo ci mbër. te Balla su ma ko nee jàkk bu ñu xoolante rek moom xam na fi ma jëm man tamit xam naa li mu war a def. Mm-hmm. waaw parce que mbër dañ ci gis en général saa bu mbër tuusee mu déggoo ak tëggkat bi supporters yi dañuy kontaan amateurs yi dañuy sawar ci moom mais des fois nga gis mbër di tuus bu tëgg bu feccee jaar ni tëgg jaar ni ñoom ñaar ñëpp taxaw mbër mi sax day mujjee découragé amateur dañ naan waa mais kii est-ce ñëw na ko ñëw na carrément. non loolu moom foo ko gisee ci làmb. Mhm. xamal ne mbër ma day daanu. Mhm. waa parce que xam nga nee naa la sànq tous mooy ouverture mhm. su jaaree yoon. mi ngi commencé tegu ci yoon. mais nga nekk ci làmb. sa géewal di la tëggal. Ah, ngay am looy sikki saaka tëgg bi jaarul yoon. mën na am sax du ci géewal ba. mën na am du ci mbër mi. xaj na ci cumbikaay ba la ka ngay bëril parce que des fois gars yi nag dañuy jaxase affaire yi. Euh, euh, tëggkat dafa mel ni dafa am lu muy yokk ci mbër parce que des fois damay gis balaa mbër mi du tëgg des fois mu ñëw raay ci sa kanam raay ci kanamam wala mu raay ci sa bopp raay ci boppam wala mu am ay bagages yoo xam ne da ko jël dénk la ko yow tëggkat bi ba nga tëgg ba noppi mu doog ko jël wala des fois mu yëg ci ndënd bi dugg ko suuf ba nga tëgg ba noppi. mu doog ko jël wala mu ñëw am benn butéel bi mu yor jox ko ngeen càpp ci yéen ñëpp ku ci nekk seen galañ. Mhm. continuer tëgg ba noppi mu doog a bëree. Euh, tëggkat ak mbër mi lan la tëggkat bi mën a yokkal ki nga xamante ni mooy bëre. noo bëri na gis nga avant ma ñëw ci mbër mi. Mhm. bu njëkk ba buur. Mhm. su ma saan dem wala muy def dara. géwél lay jiital. dëgg la géwél bi mooy annoncé. wax li buur bëgg buy dem xare géwél mooy jiitu. Mhm. kon xam nga loolu cosaan la. dëgg la mbëri tamit ñu si bëri dañ téye seen géwél. Mhm. parce que géwél dafa am solo ci mbër. Mhm. te même bu nekkul loolu ki la yàlla booleel bi ngay am bi ngay am bi ngay bi ngay door. ah ñëpp xame la ak moom. kooku danga ko war a téye. parce que benn géwél. soo ko téyee téyee nga géwél yëpp. benn géwél boo ko teralee teral nga géwél yëpp. mais benn géwél boo ci xulul xulul nga ak géwél yëpp. kon géwél dafa am sens ci mbër waaw mais nag wax dëgg yàlla sama waa ji Balla wax dëgg yàlla man moom jox na ma sama cër maa ngi koy sant di ko gërëm jàppeetuma sax affaire géwél parce que man léegi frère laa mm-hmm. waaw te te buñ demee ba ci kanam mm-hmm. di ci xam dara ci biir waxtaan bi foofu sax du ma dog géwél yi moom lu baax lañu yàggee def ndax alaaji Mansour Mansour mi ànd ak Titi defe naa ne montre bi ma takk géwél la waaye da koo da koo denc ñëw sama place fekk ma fa mu dox ba dajik man yit ko jox ko te yàgg na ko def teraanga yu mel noonu jox na na ma ay dàll leneen ak leneen yu ci sama xarit la ma ku baax la man mi jox na ma ay verre aka baax <laughs> sama xarit la Mansour maa ngi lay nuyu ah, man nuyu naa ko bu baax a baax euh. bi nga jàkkaarloo Balla Gaye mhm. nga tëggal ko mu commencé fecc mhm. ànd ak yow nga tëggal ko mu fecc fecc ba fecc mu bees mi xam naa loolu sax bëgg naa ñu wax ci ndax fecc mu bees moomu mhm. euh, bi làmb ji jeexee mhm. ñu ci bari ki lañ ko def challenge lañ ko def parce que mhm. boo duggee ci TikTok bi ñëpp moom la ñuy fecc xale yu jigéen ñi ñi ñu tële sax ñu tële sax bëgg nañ koo def ndax fecc mi dafa neex fecc mi dafa jaayoon te ñu ci bari neen nag fecc mi euh, yaa ko siwal mais génnewuloo ko affaire boobu jaaxal na ma torop nag tëgg mi yaa ko génne wala da nga gis mu neex nga jël ko tëggal ko Balla Gaye 2 mu fecc ko mën a toj stade bi wala la demee ñu ci bàyyi nag nee nañu mhm. fecc mi yàgg nañ koo dégg mais Balla Gaye moo ko wala boog yàgg Balla Gaye a ko gën a siiwal waaw mhm. ah, foofu moom question boobu question bu ma neex la mhm. eh, loolu maa ngi ci sant yàlla xam nga tëgg bi eh, ñu ngi ko njëkk a tëggal Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé mi rab Ngaaka bi muy def anniversaire am samay doom la jël groupe Ngomès moom it maa ngi koy nuyu Euh, son boobu sax dinaa ko teg. Euh, ngaa ko bi mu ñëwee ci biir Sorano. am na morceau bu mu ubbee xaw ma da koo ubbee xaw ma. da ngay gis goro euh, groupe Ngomés ak seen sabar yi. xam nga. ñu tëgg ko foofu. parce que samay doom ñoo demoon may man daw moon xam nga ñu tëgg ko foofu ci biir musique bi. loolu passé. Mm-hmm. benn xale bu bokk ci suñu écrit école de lutte Balla Gaye bu ñuy wax la joor am combat sama doom tëggal ko ko mhm. xam nga euh, Balla Gaye ma tëggal ko bi bii paase mu soog a exploser mhm. mais ci gàttal daal euh, rythme bi mhm. tëgg bi fii la jógee Ngomez mais ñu ngi ko njëkk génn génne ci Ngaaka Blindé Ngaaka Blindé waaw bi nga bi ngeen ko tëggee ba làmb ji jeex nga gis ne tëgg bi nit ñi bëgg nañ ko ñoo ngi koy kii naka la la def non bettuma parce que man euh, waxoon naa ko sax ci combat bi nee naa nee naa leen. Mm-hmm. combat bi Balla Gaye Gris Bordeaux dama bëgg woon senegal mm-hmm. ne leen képp kuy takk ngemb. Mm-hmm. Balla Gaye moo la gën a neex tuus. te man Adama Ngom su bis dinaa ko confirmer. waxoon naa ko avant combat bi. te xamoon naa li may tëgg nii ci kàttanu yàlla. na neex sénégalais yi. moo tax. Euh, am naa ci fierté trop am ci mbégte. Mhm. waaw mais ki ñu ko tëggal tamit dafa neex a tëggal muy Balla Gaye mhm. kon tëgg bi bu siiwee ba neex bu neexee ba siiw. Mhm. kon bàll Gaye la. Balla ndax moom bi ñu ko tëggee teg ko ci temps moom moo ko fekk teg ko ci temps. teg ko ci kon lépp Balla Gaye la. mais nag tëgg bi nag dafa am ko may. koo may tëgg bi. sama doom sama xarit. Wally Ballago Seck moom laa ko may. mu nga may tëgg bi. Wally yow laa may tëgg bi. Ah, am nga ci doole de. waaw <laughs> léegi bi bu damay damay génn tuuti ci tëgg mi xam naa dinañ ci dugg si waa tuuti dama bëgg ñu ñëw euh, ci combat bi parce que combat gi Bordeaux ak Balla Gaye coow li bari na torop. torop coow li bari na torop. ñu génnaat ci combat boobu boo ñaa ñëw taxaw seen kanam loolu tamit dinaa bëgg ñu xaw ci cof tuuti gannaaw rek ñëw na ñëwagul. ndax janvier le premier janvier lañ ko jàpp. Mhm. Euh, combat Balla Euh, coow li avant làmb ji la ñoom ñaar ñëpp jëf shooting rek coow li bàyyi. Mhm. ay màgget lañu ñi ñu leen fay ay millions. Mhm. seen état de forme yi liggéeyuñu. ah ci ku jege Balla Gaye 2 soo déggee loolu du la neex ku jege boo Bordeaux boo déggee loolu du la neex te nga xam coono yi mhm. mbëri di daj. keroog bi ñu ñëwee état wane ñu ñoom mérité nañu fayee ko ay millions yu baree bëri bëri. bi nga déggee coow loolu ci commencement bi nga war tëgg Balla Gaye 2 ngay dégg coow loolu naka naka naka naka la la def en tant koo xamante ni jege nga ko. am na foo xam ni toll nga fa Balla Gaye non dérangé wu ma nag. Mhm. ndax Balla Gaye yàgg na am ay coow. Mhm. xam nga ñiy wax noonu daf ñu sax arrangé. dëgg la parce que day tax su Balla gay nekkoon dix. Mhm. ci entraînement dina ko yokk ba trente ndax man xam naa Balla. nitu jom la. te ñooñ doon wax noonu c'est normal ñu wax parce que Sénégal moo tëddee noonu. xam nga il faut nga nangu ah di encaisser ñuy wax soit mu neex soit mu naqari. xam lam solo. mooy nga xam sa bopp rek. xam fa nga jëm. xam li nga bëgg. mais képp ku xool Balla gay walla nga xool Gris Bordeaux. xam nga ne ñii wax dëgg yàlla entraîné nañu. ndax Balla Gaye coup bi mu jël su fekkoon ne amutoon entraînement ak amul doole. ah du baax. dëgg la Gris Bordeaux jël na coup. ba mu jël ca saaku ya su fekkoon ne moom amutoon entraînement ak amul doole. Hmm, du baax. Mhm. dama ne. Mhm. li Balla gay def ak Gris Bordeaux est-ce que xale yi dinañ ko def. waaw keroog xeex ba amateur yi kontaan. Mhm. ñu bëre yàlla may ndam Balla gay ci bëre nañu xaar ba xale yi def loolu en tout cas daal man maa ngi félicité Balla Gaye di encouragé Gris Bordeaux. Gris gënal takk daal yi jàpp say tëggkat. dem seng seng waxtaan ak ñoom neexal leen. Mm-hmm. ndax ñoom amuñu ku dul yow. Mm-hmm. waaw. Euh, ngeen ngeen ngeen ngeen ci combat boobu euh, ngeen waa daje gi nga xamante ni nii euh, mooy Boy Niang ndax Boy Niang nag koo ko xam ku ne xam ne ndaanaanu bëre la xale bu am lecture la ci bëre xale bu bëgg li muy def xale boo xamante ni fi mu toll nii Boy Niang xam naa maa koy nuyu bu baax baax moom ak waa këram. ndax fi mu toll nii xam naa boo na ko sa combat yaag Balla Gaye bokk na ci combat bi mu gën a bëgg bokk na ci combat bi mu gën respecté xam naa ne su ko doon wax ne la. sama combat bi mooy bokk na ci combat am moom laay dugg see ci làmb mhm. ndax amul lu ko làmb ju dul jaral mhm. naka nga gisee combat Balla Gaye mhm. combat Balla Gaye ak Boy Niang naka ngoo ko gisee ak naka na ko naka ngeen ko war a waajee ndax Boy Niang nag loo ci mën a dégg kat ba dégg ko ci mooy dafa dégg xam nga yaa ngi wax léegi ne Balla Gaye mbër yi dàqar fecc la mbër yi gën a dégg ci la bokk mais kenn du ñaa ngi ci wàllum fecc ak tuus dëgg la ndax da koy teg ci moom bu fa saa bu fekkee ñu kontaan ndax dafa am dégg-dégg naka nga ko war waajalee ndax moom nag defe naa ne sa mbokkum géwél la te dafa am dégg-dégg ngeen war a na waajalee seen combat yow ak moom ak naka nga gisee Balla Gaye ak Boy Niang waaw foofu nag euh, dama lay ñaan rek mm-hmm. man Adama Ngom dinaa mm-hmm. la tontu ci benn baat mm-hmm. mais su passé damay ñaan combat Balla Gaye Boy man duma ci wax dootuma ci waxati. lu tax te joxe naa staff bi. Hmm. ndigal bu ci kenn waxati tant que defaguñu seen premier face à face xam nga la tax. Balla combat mënu ko dépasser. Hmm. Balla Gaye Modou jaar na fi. Hmm. coow loolu. làmb dootul am coow lu ëpp loolu. Boy dëgg la mbër la. doomi mbër la tamit doomi mbër la. Mhm. li muy def mën na ko. Mhm. yàlla dogal na combat ma Balla le premier janvier la. incha allah. combat la boo xam ne nii. Mhm. du combat wax combat jëf la. moo tax ma ne man sama estaf bi ma nekkal. Hmm, su ma sañoon bëgg naa sax bu ci kenn waxati tant que defuñu seen premier face à face ndax xam naa ki ma am. ñu Balla Gaye li tax ma li tax li tax sax ma la ci laaj. ñu ci bay dañoo gis état de forme euh, Balla Gaye ne état de forme bi bu ko bés bu ko Balla àndee digganteem ak Boy Niang ñu ci bari dinañ mere Balla Gaye wala Boy Niang dina ci wane boppam bu baax a baax a baax a baax a baax parce que wax boobu dama koy faral dégg parce que ñu ne Boy Niang xale la Boy Niang day entraîné état de forme bi bés bu ko Balla Gaye àndee dina ko maanaam moom dina ci bëgg dina ci profité wane wane wane wane ci boppam moom Boy Niang. dama ne yow sama xarit nga. Mhm. te dafa am benn consigne ma joxe nee affaire combat Balla Gaye Boy bëggatuma kenn wax ci tant que defuñu seen premier face à face mais nee naa la man xam naa kii ma am muy Balla Gaye combat boobu. Mhm. suñu bakkan lañ ci teg. Mhm. man nag dinaa wax ci sama côté. Mhm. Boy ñaa doomu géwél la man mooy doomu géwél. lu neex lay tuus. mais jour boobu man Adama Ngom. man maa ne. bis boobu dinañ xam ne Balla gay moo dàqale tuus Boy Niang mais te dinaa ko assumer. mais loolu est-ce que dina yomb. loo xam nga dama wax lu leer dama na la. <laughs> non dama bëgg a ñëw ci tëgg bi parce que parce que nag loo ci loo ci dégg ba dégg ko ci lii nga wax nii moom. waaw xam naa ne bu ko booy ñaa déggee fa mu toog dina jug def li muy def dina fecc wane lu neex wane ne moom mbër la te dafa dégg te tëgg ko booy ñaa tamit dinaa ko dem jëli te xam naa ne bu déggee lii ngay wax bu doon répété ci deux semaine dina ko def au mois ndax bëgg bëgg bëgg wan wan wan wane ne moom. mbërëm dafa dégg te moom dafa dafa dafa dafa dégg mbërëm da koo déggal moom. gis nga kii tëggal Boy Niang. Mm-hmm. sama rakk la. Mm-hmm. sama xarit la. maa ngi koy nuyu de passage. Mm-hmm. ku mën a tëgg la lu neex lay tëgg. ndax doomu Pikine la. mais li ma la dafa leer dama ne la. man Adama Ngom man maa ne. le premier. dinaa woon Sénégalais yi ne. Balla Gaye moo gën a neex tous Boy Niang man Adama Ngom maa ko te dama koy assumer. te damay génnewaat leneen lu bees. ñëw andi ko le premier janvier. dama ne le premier janvier. Mhm. dinaa woon Sénégal yi ne kuy tuus Balla gay moo la dàq tuus. kon loolu leer na léegi dafa am beneen point boo xam ci ni bëgg am na tamit leneen lu may ñaan. Mhm. muy waa CNG dama koy ñaan rek. Mhm. xam nga ay Boy Niang ay Balla Gaye ay Modou Lo ay Gris Bordeaux. Ah. ay Lac de ay Ama Baldé. ñooñu seen tëggkat yi dañ leen war a may quinze personnes mooy yoon. su combat paas ñaata la may. douze lañ ma may. nga xoolal ku toll ni Balla gay di dugg si ci stade ñu koy may ay douze personnes xam nga neexul quoi parce que nag amateur dañu fay seen xaalis pour gis bëre pour gis bàkku. mais am ñoo xam te ne tous moo leen fa andi. leen tax déplacé. voilà am na ñoo xam ni tous moo leen fa andi. waaw mais mbër mi tous bu fekkee sabari doyul ah mais. wax dëgg yàlla mais nit ñi duñu kontaan. Mhm. may ñaan biraa maa ngi lay ñaan ngir yàlla ñun géwél yi ñu yor ñi nga xam dañoo yor mbër yu mag yi. Mhm. suñu amatee combat nga may ñu quinze personnes. Mhm. dañ koy ñaan rek liñ ci jubli mooy pour stade bi neex. bis bi taaru loolu dong la. waaw ndax ñun géwél duñ def lu ñaaw duñ wax lu ñaaw. lu neex rek lañ bëgg. maa ngi la koy ñaan Bira waaw. gis ngeen mbokk yi moo ngi koy ñaan ndax euh, dafa bokk ci làmb ni mbër yi amee cër ci làmb noonu amee cër ci làmb ndax defe naa ne mbër bu ñëwee sans kat defe naa ne sax du neex mais beneen point bi may dugg si rek mooy euh, damay ñëw ci wàllum tëgg parce que nag lu ñu mën a wax mooy euh, DG nga ci ñenn xale yi nga xamante ni dañuy tëgg naka nga gisee tëggum léegi su mu nee da nga gisee tëggum léegi ndax dañ ci gis benn xale boo xam te day ñëw ci Père Adama Ngom daf ci benn un an ci moom rek jékki-jékki rek am moyen ut ay sabaram dem créer groupe am nekk fa di liggéey naka gisee tëggum léegi ndax dama dégg euh, nu mu tuddeetu waay Paa bee. Mbaye Gueye Ndiaye. Mbaye Gueye keroog dama gis dama gis keroog ñu ñu ñu ñu jëli ko mu ne euh, tëgg dangay gis dangay dégg xale yi di tëgg nga nga dégg tëgg mi rek nga xam ne ñi waa Thiès la jóg. Hmm. wala nga dégg leen ñu tëgg nga xam ne ñi waa Ndar ñooy tëgg est-ce que loolu nit mën na koo dégg ci galañ ak naka gisee tëggum léegi. waaw maa ngi nuyu mbay mbay mbay maa ngi lay nuyu sama xarit bi. Mm-hmm. li mu wax noonu. Mm-hmm. mais dëgg la mm-hmm. euh, kenn du ko dindi. ndax mbay moom lu mu la wax ci tëgg. jàppal téere la du dañ. Euh, mais xam nga léegi jamono moo changé. te da ngay gis sax lawbe wala géer wala njaago bu dem yetlu xam ay sabaram teg. di xaar programme. Euh, lam ci jublu nag mooy euh, wax dëgg yàlla lim ci yoree këram. Mhm. xam nga ndax jamono bi moo métti. Mhm. foofu dañuy comprendre moo tax am na détails yoo xam ne du ci dugg. mais li Mbaye Gueye wax mooy dëgg parce que nag boo compté fukki tëggkat ah nga ne leen na ku ne tëgg. ku ci tëgg rek di nga xam ndax kii lii mu tëgg deretam la wala jàng na ko wala da koo faraatu mais nag wax dëgg yàlla. tëgg mi moom war nañ ko xoolaat. Hmm. waaw war nañ ko xolaat comme li Mbaye Gueye wax rek. waaye nag man damay bàyyi noonu rek parce que am na détail yoo xam ci dugg xam nga ndax mag moom day defar. Hmm. xam nga euh, man nag man maa ngi ciy sant yàlla. Hmm. bu baax a baax. ndax sabar man moo ma teral. foofu sax bëggoon naa fee ñëw parce que ñu ci bàyyi xam nañu la. waaw ñu ci bàyyi miin nañu sa kanam miin nañu sa jëmm ci biir làmb. Mhm. mais est tëgg. événement yi ni mu ni mu ni mu war a doxee est ce que maanaam tëgg bi bi nga xam te moom ngeen jël def ko métier est ce que yéen a ngi ci gis seen bopp bu baax a baax. non man moom man Adama Ngom. Hmm. yàlla xam na ne maa ngi ciy gis sama bopp bu baax a baax a baax man bañ naa ko ba sabar yi may tëggee. Hmm. dama leen utal néeg spécial. heure bu ma xëyee tijji leen soog leen tëjaat bala maa dem fenn dinaa leen ubbi. bu hmm. jàkkaarloog ñoom soog a dem fi ma dem. ndax sabar mhm. moo tax ba ma dem màkka sabar moo tax ba ñu may ma ci oto mhm. sabar moo tax ba ñu may ma kër mhm. sabar moo tax ba may liggéey ci maire yi kon man Adama Ngom sabar teral na ma di gërëm nag koo xam ne dafa sori ci man muy Aida Sow Diawara honorable député teraanga yi ma wax la yi ma la wax yëpp moom moo ma ko defal maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi. Mhm. te wér yàlla sàmm ko. Mhm. sàmm njabootam. Mhm. waaw mais wax dëgg yàlla man moom sabar teral na ma. te maa ngi ciy voyage nag chaque année ma dem Espagne ak France tëgg fa sama festival waaw kon man sabar teral na ma waaw. Euh, tëggum tëggum tëggum xale yi léegi. tëggum xale yi léegi parce que loolu nag man xam nga am na yoo xam te dama ko ciy bëgg parce que tëggum tëggumu yàgg ba da nga daan gis sabar wala nga daan gis xew wala nga daan gis tànn biir nga gis nga gis buñ daan ñëw di fecc dañ daan def sër fecc mais léegi da gis xale yi ñu ñëw di fecc ci sax sol baa wala ñu sol tubéy ci ñi leen tëggal la wala boo ñoom ñoo yàq tëgg mi foofu bëgg naa ñëw ñu leeral tuuti parce que léegi sabar yi xale yi ay culotte sax la ñuy sol wala sol des ñu sol cuissard sa ñëw fecc te magu njëkkee ba daan gis bu naan ñëw fecc si danaan def sër des fois ñu jiital sër bi ci biir fecc xam nga yooyu lañ daan gis mais léegi yooyu yëpp daanaka gisatuñ ko. waa xam nga mooy mooy li ma la sànq nee naa la jamono moo changé. Mm. bu njëkk ba ñu doon fecc sabar. Mm. dañuy waddoo juróom-ñaari mm-hmm. wala ñeenti sër. Mm-hmm. mën nañ fecc ba sabar gi tas. Mm-hmm. Ah, doo gis si ñoom dara. lu ñaaw. mais léegi nag jamono moo changé jamono bu changé nag da ngay ànd dox ak moom. ndax am na loo xam ni soo ko waxee. Mm-hmm. Ah, ñu xeeb la ñu jéppi la. Mm-hmm. te man dama yor ay doom yu mag. Mm-hmm. samay doom ñëpp leen xam. kon man wax lu rafet rek moo ma moo ma war. mu ngi mel ni comme woy rek. waaw léegi ku mu neex nga dem nga dem lire sa benn gitaar sa clavier dem dem xew. yoo xam nga ne léegi ñiy woy waruñoo woy. dëgg la waaye dañ ci jublu ah teral seeni waajur. lu mu amee ci woy bi nag noonu la amee ci sabar yi waaye bis dina ñëw ku ci ku ci laal lootu wërtan laal da ngay feeñ ndax dara gënu rafet ñu toog ñooy la kotal sabar nga kot sabar ñooy la tàggul mbaar nga tàggu mbaar ci yoon te loolu ñu ngi commencé am euh, ci wàllum tëgg parce que dañuy gis ne euh, buñ la buñ la waxee euh, alphabétique commencé ko sax A ngay wax B C D nit buy tëgg maanaam comme ça nga ne ko nga ne ko bàkkal ci ñu xam ne kii tëggkat la wala aay na ci naka la war a mën a dugg see wala lan nga war a mën a tijjee tëgg. non loolu moom euh, su dee man. Mhm. wax dëgg yàlla yaa ñi moom lay ubbee. yaa ñi moom te moom lay tëjee. Mhm. waaw su ma ci paasee. Mhm. tëgg nag sama xam-xam. te li may tëgg lépp. dinaa fexe ba teg ko ci yoon. Mhm. fi ma toog nii di wax ak yow. Mhm. am na ñu ma jàngal tëgg. Mhm. ñii ñu ngi Espagne ñii ñu ngi France. ñii ñu ngi Angleterre. ñi nekk États-Unis ñoom ñëpp fu ñu taxaw ne aadama Ngom moo jàngal tëgg dañ leen di respecté. ndax man dama lay dama la koy jàngal comme man ni ma ko jànge waaw man daal noonu laay doxalee. ah defe naa ne defe naa ne ah, euh, ni ñu amoon ci temps jeex na ndax kii moom may signalé mhm. mais lan lan lan lan moo la gën a neex ci tëgg mi bu bu buñ génnee ci loolu nga doog a tàggatoo lan moo la gën a neex ci tëgg sabar. li ma gën a neex ci tëgg mooy nga respecté say sabar foor ko. Mhm. foor bu jaar yoon. Mhm. booy tëgg nga sol lu rafet. di wax lu rafet di jëf lu rafet. loolu moo ma gën a neex ci tëgg bi ci topp nag maa ngi gërëm jaw farandeer ndax jaw mooy géejaway jaw xol baa rafet dëgg la man de làmb lu mu rëy rëy rëy dinaa dem waxtaan ak moom ne ko combat bi loo gis mu ne ma combat bi nii lay demee te noonu lay demee yàlla moo ko may xam-xam ci làmb te jaw géejawee gii mu nekk nii ñëpp ko respecté ndax waxam bu rafet ak jëfam bu rafet mais noonu la bëggee bàll Gaye 2. Jaw est xam nga ne Balla Gaye Jaw euh, mm-hmm. du xeex du xulo mm-hmm. mais heure boo toogee moom wax ci bàll Gaye loo war ta wax mu dóor la. Mm-hmm. ndax bëgg Balla gay kon Jaw maa ngi koy ñaanal yàlla gën ko fee bàyyi. yàlla sàmm ko sàmm ñabootam man de mënuma ko fay. nit ku baax la te aayul gaaf. Mm-hmm. loo wax ak moom keneen du ko dégg. Mm-hmm. te lu baax la lay digal lu baax tamit lay def ci yow kon jaw borom waalo borom géejaway maa ngi lay nuyu di la sant. man mii maa ngi ko nuyu baax baax ndax defe naa ne comme ni ma la ñëwee jël si la rek loolu loolu noonu la ñu xamante. mais teewul daf may woo. di waxtaan ak man ci lu baax suñ tasee dina ma conseil dina ma wax defeel nii waxeel nii doxeel nii euh, te mënoon na ko cee bañ a fekk mhm. mais maa ngi koy nuyu bu baax a baax ndax fi naa ne suñu xamante sama xamante maak moom rëccu ma ci dara ndax dina ma dina ma dina ma conseiller te dina ma digal lu bari bari maa ngi koy nuyu baax a baax ku baax la ku baax la mhm. kàddu yu mujj euh, di la sant mhm. di la gërëm di ñaan seen sit bi wasaare yàlla gën ko barkeel ndax ku yaru nga mm-hmm. te xam nga ni ngay waxee ak mag mm-hmm. te kenn mësul dégg ne yaa fi wax nangam mm-hmm. maa ngi ñaan yàlla gën leen suturaal yaa ak sa cameraman bi sama turandoo ah, yal yàlla def jàmm du nuyu géejaway di wax way yooyu ñëpp sant naa leen gërëm naa leen korog seen taxawaay ca stade ba ñëpp ko rafetlu ne woon naa supporteru Balla Gaye xamuñu violence loolu. Mhm. moo mës nekk ci ñoom te loolu du mës a dañ. Mhm. Euh, di ñaanal Balla Gaye mhm. yàlla may ko jàmm. mu wér sàmm ko sàmm njabootam ak staff bépp. di nuyu nag soxnaam su baax si. buri. buri tamit aylu gaaf. te bala ngaa xam kan mooy buri nga dem këram xiif. buy togg day togg ba bàyyi ci biti boolu dof. ku ñëw lekk bu suur kon buri maa ngi lay nuyu di la gërëm. Mm-hmm. di di gërëm tamit sama staff muy Ngomees. Mm-hmm. ndax samay doom ñoo fi ne. xam nga mm-hmm. lu ma wax loolu la ñu wax lu ma waxul waxuñu ko. kon maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di ñaan senegal yan na fi jàmm yàgg. te sax fi jërëjëf. gis ngeen mbokk yi tey noonu lañ ko defalee woon parce que gannaaw làmb ji dafa tëj faw ñu dem ci ñi nga xamante ni ñoo bokk ci làmb ñoo boot làmb ñoo ŋànk làmb bëgg waxtaan ak ñoom parce que ñoom tamit ci làmb lañ bokk ndax saa bu mbëri di ñëw ñoom la ñu àndal ñu tëggal leen lu neex ndax lu làmb ji yàgg-yàgg-yàgg mënoo ko yëg ndax ambiance bi nga xamante nii mooy am ci biir stade bi di leen jaajafal bu baax a baax di leen jox seen wàcc di leen wax ne ni ñu ko defee ci Père Adama Ngom bëgg nañ ko defee ñeneen ñeneen ci ñeneen ci ci làmb ñeneen ñoo xam te ne bokk nañ ci làmb di leen jox dig daje beneen yoon Adama kontaan naa ci yow ba beneen.